Ah, Salam alaikum beaucoup dans le monde et département Kébémer. Le docteur Chahouna Bey Monglien de nous, dit l'en Djadje Valti, mobilisation bien ramené, depuis 7h30, 8h. Nous avons vraiment massivement dit voter ici. Nous avons encore une fois lancé encore un appel la euh, population daru Mokhti le ak euh, département de la moy ñu massivement ñu génn voté parce que dañu un taux de participation bo xamni record lay sur l'histoire politique du Sénégal ñi ñaan aussi particulièrement suñu soxna yi suñu yaay yi ak suñu jigéen yi xamnañ souvent ci voté mais nañu génn euh, vraiment voté parce que loolu la ñuy jusqu'à présent d'après bureau de vote ils ñu voté le vote se déroule normalement sans incident seulement li nga nous avons alerté interpeller le sous-préfet de l'arrondissement de Darou Mouhty interpeller eh, le commandant de brigade de de la de de la ville de de la commune de Darou Moi, le transfert d'électeurs yi nga préparé, ñu surtout dans l'après-midi à partir de 14 h 18 h loolu ce que wax avons dit na kenn ku ne jël say mesures duñ ko parce que nous arrêté bu génn boo le ministre de l'intérieur muy fixé nga interdit toute circulation interrégionale am selon selon des sources sûres y a des gens qui ont été en train de se faire. te Touba ñëpp xam nañ ci région de euh, Diourbel ci la bokk am na ñoo xam ne si ñi ngi leen di jëlee ji bay ci la max ak Pekes ñoo ñëpp xam nañ ci région de Thiès lañ bokk département de Tivaouane kon liñ xamal ne leen amul benn transfert directeur boo xam ne danañ ko accepté ñu jël nañ suñuy matuwaay ak suñuy mesures yu mat sëkk bépp oto boo xam ne yaa ngi transporté électeur loolu ci fekk na te benn électeur du wàcc centre vote bu ñu wàcc seen kaar ak seen mini kaar leen préposé suñuy nit te benn nit du fa voté benn transfert d'électeur ndax loi bi kenn du ko violé arrêté bi wala décret bi nañ ko respecté comme cela se doit képp ko xam ne nag yaa ngi nekk ci biir dëkk bi nga nga dëkk Daaru Musi wala wote di Càbbugel wala wote ji Arafat wala wote ji Sar Sarsara loolu posé wuñu aucun problème danañ leen bàyyi ñu voté ji convenablement comme cela se doit mais li nga xam ne duñ ko accepté te duñ ko nangal doomu aadama te luñ ci bañul bañuñu ko ci mooy le transfert d'électeur daana fi am une tradition la boo xam ne ñoom baaxoo nañu ko defee transfert directeur du fi am mini minicar bu fi wàcc danañ jëf leen te yow doo fi wàccee client te client bu fi wàcc bu jógee dana la delloo ci dëkk ba nga jogue woon ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gëm tey ñaan mbokk yëpp ñu génn massivement dem voté ji parce que c'est leur maintenant de libérer Darou Moussi c'est leur de libérer le Sénégal te n'y ñaan mbokk yëpp ñu voter pour wàllu askan wi jërë leen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Darou Moussi ñi ngi a di nuyu di leen ziyaara Euh, di nuyu waa département Kébémer bi yëpp ak sénégalais yëpp euh, li ñuy def rek mooy di woo ñin ñi ñëpp nañu génne voté en mars jigéen nag góor mag ak ndaw ñu ngi tàllal loxo ñëpp ñu génn voté bañ toog ci kër yi ba 18 heures jot na ñëpp génne teel voté ji bu ñu paree